ñoo ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi daje di ñaan sun borom tabaraka wa mu boole ñu tawfiq di jiital ci nuyoo boobu yi ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ak kilifa yi tàmbale ko ci al usta am ak ñi nga xam ne ñoo fi dal ak kilifa nga xam ne ne maa ngi ñi nga xam ne ñooy waa quartier bi ngeen defe seen waxtaan wi di feddali suñu nuyoo ak suñu mbégte ci ñi nga xam ne ñooy jamhiyatu shabab fii ci Mbuur nga xam ne ñoo dox euh, ba jataay bi am di ñaan suñu borom tabaraka wa taala lépp lu fi génn ci yiw borom bi tabaraka wa taala bind ko ci seeni balance te képp ko fi teew mu fay la ci aw yiw fegal la ca lépp loo xam ne luy lor la faral la ca ay tuyaaba yëkkatil la ca ay daraja e, jataay bi comme niñ ko xamee dañu waxoon ne ci ñeenti waxtu lay tàmbali moo tax nun waajoon nan ba jàpp ne ci ñetti waxtu ak genn wàll lan war a ñëw fii waaye xam naa ne ñàkkul ne am na ay benn benn mbir yoo xam ne tax na mu xaw a yeex ba agsi fi mu agsi kon introduction bi ci ni ko kilifa jataay bi waxee suñu bokk xalifa xëy na du gudd lool ndax ñu mën a ubbi jotaay bi daal di déglu ci eh, li nga xam ne mooy participation mbokk yi fi teew moo xam ay laaj lay doon moo xam ay wax yu ñuy wax mbooloo mi di ko jëriñoo la ndax jotaayu xam-xam moom su ay jullit bokkee toog dañuy waxtaane seen diine rek lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu am njariñ la ñu jëriñoo ko rawatina nag jotaay boo xam ne bu ubbiku la nga xam ne tënkuñu ko ci benn set li ñuy ubbee eh, ñetti tomb yu gàtt la yoo xam ne benn bu ci nekk danañ ca junj ak junj boo xam ne ak fàttali lay doon ci lu ëpp ci yéen mu doon ay dénkaane yoo xam ne dañ koy dénk sunu bopp di leen ko dénk ndax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jataayu dénkaane buñ ko masaan sàkku ci moom kàddu yu gàtt lay wax daal di yem ca lool kon li ñu ci ñetti tomb bi ci jëkk muy loo xam ne jullit bu nekk aajo woon na ko te mënu koo ñàkk te fu mu toll fu nekk mu war a doon yitteel bi njëkk loola mooy taxsiixul ictiqaad wéral pas-pas kenn du wax ne ña ngay waxal doonuñu ay jullit wala dugg guñu ci lislaam ndax li ëpp ci askan wi muy suñ askan wi fii ci suñ réew mi ñu ngi ci diiney lislaam ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi wax laa ilaha illa waaye ñu wéral pas-pas suñ ko waxee mooy ku denc dara loo fonk lu ne léeg-léeg nga delluwaat te di ko seet ba xam mbaa ak max dugg ca wala kuy jalgati wala kuy luubal laalu ko kon loolu mooy wéralaat pas-pas bi ak seetaat ko ba xam la nga fasoon sax ndax lu baax la walla njaxase nga ca biir ndax nga mën koo defaraat wéral pas-pas bu ñu ko waxee moo di nit ki na góor-góorlu ba xam xaqi boroomam ci moom mooy lan xaqi sa boroom ci yow mooy ñaari mbir benn nga jaamu ko moom dong ñaar mooy nga bañ ko bokkaale kenn waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla képp te bañ ko bokkaale ak dara jaamu yàlla nag buñ ko waxee mooy nga wéetal ko wéetal ko ci doon gam doon yàlla ci boppam doon gëm doon sa borom nga yëg ne amuloo beneen borom bu dul moom wéetal ko ci man-manam bi mu man nga xam ne moom rek moo ko mën moo mën a firi moo moo mën a dundal mooy feebar bu jotee mooy nëral bu faatu jotee mooy rey bu dekki jotee mooy jekkal yooyu yi nga xam ne moo ko moom te kenn fekk ko ca nga nangul ko ko ci sa wàllu pas-pas bi ne xol mu feeñ ci sa jëf yi nga xam ne moom ngay jëfe ci loolu su nekkee ci biir xol bi yëg-yëg lay doon boo xam ne bu noppal boroom lay doon ndaxte dana yëg ne ña ko bañ ak ña lu ñu ko bañ bañ bañ mënuñu ko wàññi dara ña ko bëgg it lu ñu ko bëgg bëgg bëgg dañuy bëgg rek waaye mënuñu ko yokk dara ndax sa boroom tabaraka wa taala noppi na ci yow bu dee sa mbirum wërsëg noppi na ci bu dee sa mbirum wér gi yaram noppi na ci bu dee sa mbirum dund kañ la tàmbali ak kañ lay jeex ak lu lay gaar ci diggante boobu yi sa borom noppi na ci xeetu ngëmin woowu bu ko nit ci gëmee ci biir xolam ku nopp ku am nooflaayu xol lay am ku am féexu xel lay doon itam waaye ci bitti it da am nag ay jeex yi gëm-gëm googi bu nekkee ci xol bi mu gëm ne boromam mooy def mooy jindi dana xam ne ku dul moom yeyoowul muy tiit wala muy ragal ngir loola te du jóg di sànq alalam ci ñoo xam ne ñuy jóg di nax doomu aadama yi lañ moo xam dañ leen di nax ci turu diine wala dañ leen di nax ci ne ñoom ay fajkat lañ wala ay xam xamkat lañ yoo xam ne xam nañu lu dikkagul wala mën nañu laa faj wala mën nañ daa defal dara wala mën nañoo jalgati ba yàq wér gi yaramu doomu aadama wala mën nañoo delloo si lu réer xeet yooyu yépp day nokkulu ci seen biir kon jëmmi pas-pas boobu yi nga xam ne moom la ñu tudde tawxidu rububiyya dafa doon tomb boo xam ne jullit bi moom munu ko bañ a fas te di ko teetlu jamono yu nekk ndax kat fi mu nekk suñ jamono bu njëkkoon lañ xamoon mooy lii ñu tudde tawxidu rububiyya muy yàlla mooy rey mooy dundal mooy dekkal mooy wërsëgal ñi gëmul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax wéetal yàlla googu amoon nañ ko maanaam tawxidu rububiyya amoon nañ ko suñ masaan tiit ci yàlla la ñuy dellu moo tax borom bi wax ne wa ida rakibu fi lfulki daawu llaha muxlisina lahu ddin fa lamma najjaahum ila lbarri ida hum yushrikuun loolu mooy yéefari waa màkka noonu lañ meloon su njàqare masaan dikk rek ñu delloo dellu ci yàlla dañ suñ tiitee dellu ci suñ borom bu jàmm dikkee nag ñu door a delluwaat ci xiram yi ak la ko nuru da koy xool nag suñ société bii tey da gis ne lu bari ci doomu aadama yi buñ tiitee seen xel la muy njëkk a mooy doomu adama nit ku baax wala nit koo xam ne kuñ jàpp ne ku baax la moo tax benn kilifa mi ngi koy nett li ma ne benn bés dafa nekk ci oto oto bi daw ba mu yàgg rek mu këral pënu bi toj nee na nit oto bi tur wu ne ma dégg dañu ko di diw yaa cheikh diw yow diw yow diw nee ma déglu tur yi ba mu jeex dégguma ci turu yàlla nee na ma ne leen waaw ana yàlla ana yàlla mi nga xam ne moom mooy doom kon bu fekkee aw askan dem na ba tollu foofu jaadu na bu dee tuddoo jullit di julli di woor di wax laa ilaha illa allah itam jaadu na ñu fàttali ko pas-pasam yi mu dencoon mu xoolaat ko ba xam tayibul wala yàquwutam dee sax mu ko defaat kon kooku mooy li aju ci tawxid ba moo di sa borom tabaraka wa mii nga xam ne moom loolu lépp moo la ko yoreel moo la bind tàgguwul kenn di la wërsëgal kenn di la dundal tàgguwul kenn lu muy def ci yow da koy def tàgguwul kenn kon kooku war ngaa am pas-pasu ne moom dong nag moo yeeyu nga jaamu ko moom rek moo yeeyoo ci yow ak jaamu kon ku yàlla bind ku mën a doon ak lu mu rëy la ko tàmbalee ca yonent ya ba ca malaayika ya ak siddiquun yaag shuhadaa yaag saalixuun yi kilifa yu mag ya nga xam ne ñooy ñi gën a baax ci mbindeefi yàlla yi ñooñu ñëpp ay jaam yàlla lañ yoo xam ne kenn ku ci ne sa kanam borom njàqare nga àndal ak tiitaange di xool koy jaar ba mucc kon yow soo amee yëg-yëg boobu xam sa borom mooy kan xam ne ñema sa baax ñépp moom lañ bëgg a jaamu kon nga yëg ne yow jaamu yàlla bu tuuti nga yow itam bu nekk ci kanamam boo xam ne sa itte guddi ak bëccëg lu nëbbu ak lu feeñ mooy fooy jaar ba jaamu yàlla googu yi nga teg ko ci yoon te wéetal ko ci ba doo ci boole keneen su tomb boobu jollee ci wéral pas-pas muy tasrifu li atiqaad moo di sa boroom tabaraka wa taala turam yu rafet yi ak melokaanam yu rafet yi yooyu yépp nga jéem cee góorgóorlu ba xam ko ndax turi sunu borom tabaraka wa taala yi mu tuddee boppam li tax xam ko am njariñ ci ab jullit moo ni tur wu ci nekk dafa am jeexital wu mu jeexital ci dund ndax yooyu ma doon lim gët naan la tawxidu rububiyya la benn bu ci ne boo ko seetloo am na lum jotee li ñu tuddee tawxidul asmaai wa sifaat muy wéetal sa borom ak ci melokaanam ndax boo jëloon rek turam bi nga xam ne mooy ar-razzaq sa borom mooy kii wërsëgal loolu la firi yaa razzaq boo ko waxee mooy yow mi nga xam ne yaay wërsëgal kon nag li nga def ko sa loxo ci sa wërsëg ci sa borom la jógee da nga lu gën a xóot loolu sax moo ne sa borom bi mu laataan la rek feeñ fii ci àdduna di juddu fekkoon na moom sa wërsëg xam na lépp ba noppi loolu su ko jullit bi xasee xam buntu risque muy wërsëg na mu koy fàggoo dana jéem a góorgóorlu ba mu dëppoo ak na xam ne noonu la ko sa borom bëggee tabaraka wa taala fexe ba mu doon lu lew dara lu lewut bañ caa dugg su ko defee loolu la muy firi mooy doon ku jub ci wàllu alal doo laal alali jàmbur doo ko jalgati lu sa yoon nekkul doo ca dugg te jàpp naa ne tur woowu mu yaral zaq jooju su ko jullit yi gëmee te dund ko danañ yëg ne problème yi gën a rëy ci suñ jamono tey ñi di ko dund réglé wu na muy wàllu jalgati alali askan moo xam alali réew la wala alali jàmbur joo xam ne joo moomut la kooku ci yi gën a lor doomu aadama yi ci kaw suuf tey ci la bokk su fekkoon ne nit ñi dund nañ tur woowu rek dañuy daal di mucc ci loolu tur yépp nag boo ko toppee noonu la mel kon ñetti mbir yi tasxiixul ictiqaad muy wéral sa pas-pas ci lu aju ci li ñu tudde rububiya ak al uluhiya ak al asmaa wa sifaat jaadu na jullit bi fu mu fu nekk mu xoolaat pas-pasam boobu yi ba xam laa dara laalu koom lépp ba xam lam denc ci sax lu baax la am lu baaxut la di ko gaaraat di ko xool di ko comparé ak alquran ak sunna ndax dëppoo naag moom su dëppoo ak moom mu ne alhamdulilahi rabbil alamin feddaliwaat pas-pasam ba mu dëgër su fekkee ne gis na ci loo xam ne lu baaxut la mu dindi sànni ah loolu kat bokku ci ndekete seet loo xam ne lu baax la boole ko ci kon loolu mooy tomb bu jëkk bi beneen bi ci def tam doon loo xam ne moom it jullit mënu koo bañ a xam mooy tasxiixul ibaada jaamu sa borom tabaraka wa taala ci boppam nga fexe ba mu wér ndax ginnaaw gëm nga ko sa imaan wér na xam nga ne sa borom moo la bind yooyu ma wax yépp jàll na ba ca sës nag mooy nga xam ne moom mii moo yeyoo nga di ko jaamu nga fexe ba jaamu boobu mu wér nag jaamu yàlla gu wér nag dafa war a doon lu noppale ci ab jullit maanaam lu mu war a lu war a mën a leer ci moom ndax su fekkoon ne sunu borom tabaraka wa taala dafa wàcce alquran muy ab téere boo xam ne rek da koo tàbbal mu ne put mu ne jël leen li ci nekk jéem koo jàngal seen bopp jëfee ko kon wax dëgg yàlla dana metti lool juyoo nga dana jaadu mu war a mën a bari lool ndax ku nekk mën ngaa jàng dégg saw dégg lu bopp woo xam ne dangay ngay jàpp ne nii la te su ko defee njaxas dana ca mën a dugg waaye dafa wàcce téere boobu yi wàcce ko ci koo xam ne ñépp dëppoo nañ ci ne ku mat la ku baax la ku dégg làkk wañ wàcce ci moom la ba noppi ku boroomam sala te boroom boroom bi tabaraka wa taala kum saal boppam jàngalal la boppam benn mooy lim lay jàngal da ko dégg ñaar mooy lim lay jàngal doo ko fàtte sa nuqri'uka fala tansa loolu la boroom bi wax nun noo lay saatabun la saa doo fàtte ginnaaw nag téere bi yàlla da ko wàcce jàngal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xam ko mu ne ko jottali ko nit ñi inna anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun wàcce naa ci yow alquran ngir lan ngir nga leeralal ko nit ñi kon gannaaw buñ ko xamalee ba noppi dañ ne ko xamal ko nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw bu mu doonee yonent mu dund ci kanam jullit yi ñaar fukki at ak ñett lépp doon jàngale alquran léppam ci jaamu yàllaam alxuraan la doon dund ci ay doxiinam ci ay waxiinam ci mbiram mu feeñ ak mbiram mu nëbb lépp alxuraan la doon jàngale su waxee mi ngi ci alxuraan su jëfee mi ngi ci alxuraan kon nit ña dañ doon jàng ci di déglu di xam di xool di gis ñooñee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal leen alxuraan kon ci ay waxam ak ci ak dundam kon jot ga dal nay am mu daal di doon itam lu leer naññi ba boroomam tabaraka wa taala wax ko ne ko yow jot li nga li nga xam ne moom laa la yónni woon moom it mu seedeloo saxaaba yi nga xam ne ñoo ko teewe woon ca xajjatul wadaa muy ajam ga nga xam ne ca la aj te xeetu lislaam li ëpp ci ñoom ñu fekke aj googe ñu wax ne lu ëpp cent mille personnes ci ay saxaaba muy téeméeri junni ci ay bakkan fekke nañ aj googe daf leen a xutba ba daaneel mu ne leen ndax jot li naa li ma sama borom yónni woon ñoom ñëpp ñu ne ko jot li nga day te nëbboo ci dara mu daal di yëkkati baaraamam bu tedd ba daal di joxoñ ci kaw ne allahumma fashhad yow sama borom kon seedeel loolu da nga maa yónni woon jot li naa kon ñooña nangul nañ seen bopp ne dégg nañ kon day mel ne man sama jaan wàcc na loolu moo tax aj googee ba mu jàllee ña am fiq ci aw dégg yiin te xam mbir na muy tëddee daaloon nañ tàmbalee am njàqare ci ne yonent bii kat sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni mission mi ngi jeex kon tàmbali na di tàggoo moo tax kero ba ida jaa nasrullahi wal fath wàccee abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu dafa jooy ñi ne ko li ngay jooy lu mu doon omar ibn alxataab laaj ko ko mu ne saar wii day yëgeewuma ci lu dul tàggoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Omar ibn Xataab mu wa kaana Abu Bakrin a'lamana nee na mooy ki ëppoon xam-xam ci ñun moo tax mu déggee ci loola kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam foofa la dajale xeetu lislaam tàggu leen ne leen jot li naa leen li seen borom wàcce woon diine ji mat na borom bi gannaaw bu mu wàccee ci moom alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina keroon la lislaam mat kenn mën a tuccee dolli dara kenn sañ a tuccee wàññi dara mu doon diine ju mat sëkk leer nañ yoo xam ne saxaaba yi jëlee nañ ko ci yonent bi jottali ko borom xam-xam yi bind mu doon ay xam-xami xadiis doon alquran bi tege borom xam-xam yi tafsir yi tënku ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa firi ko mu leer nañ ñi ci nit ñi kon muy diine joo xam ne diine ju leer nañ ñi la ju sax la ndax amul jeneen diine joo xam ne ju ne ci kaw yoo xam ne am na benn sanad maanaam ab chaîne boo xam ne dañ naan diw nee na mu jële ci diw mu jële ci diw ba ca yonent ba loolu amaatul ci kaw suuf fii lu toll nii ci kaw Ibnu Hazm mi ngi koy ci jamonoom muy quatrième ak cinquième siècle bu gàddaay bi muy wax ni amul ci kaw suuf benn téere wala ab xadiisub yonent ci yonent yi ma ko wàcc boo xam ne mën nañoo xam ab seenam maanaam càlla la ga diw moo ko déggee ci diw kii déggee ko ci diw ba ci yonent ba mu ne benn xadiis képp amatul ci yonent yi ci def yépp naka nag yonent boo xam ne la mu wàcce woon lépp jaaral nañ ko ci ay càlla la yu nañ ñi ñi xam ko nam ko waxe woon ñi binde ko noonu yokkuñu ca wàññiwuñu ca kon jullit bi amatul aw lay ci di jaamoo yàlla nu ko neex kon la war a doon meññetum loola ak njariñ la mooy jullit bi diineem ci wàllu jaamu yàlla moo xam julli la moo xam koor la moo xam aj makka la su duggee ci biir julli gi taxawal di julli na muy jullee mooy na yonente ba sallallahu alayhi wa sallam waxoon sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gisee muy jullee noonu su boobaa du ca sañ a yokk du ca sañ a loolu benn la ñaareel ba mooy ki nga xam ne sañu sa fekk jaamu yàlla bu sax mu cay yokk wala mu cay wàññi kon kooku war naa yéen ni moom sañu sa andi lu muy tudde jaamu yàlla loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko woon te fertal sa bopp ak jaamu yàlla ak indil ko sa bopp loolu li muy firi mooy biddaa ci diine liggéey loo xam ne yonent ba ak i saxaaba xamuñu ko woon mooy li nga xam ne nee na ku ko def ku nekk perte nga ndax la nga ca doon séntu bu ëllëgee doo ko ca am bàkkaar rek nga ciy jële kon jullit bi na wattandiku ci diine ji mu sos ci lu ci bokkul na wattandiku diine ji mu fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu doon jaamu yàlla mu teggi yoon woowee jaar ci weneen yoon wu bokkul ak woowu kooku mooy tasxiixu al ibaada ñetteelu tomb bi ñu gaaw gàttal ko mooy tasxiixul axlaaq maanaam li ñuy tudde makaarimul axlaaq muy ko yi nga xam ne mooy yi gën rafet jullit bi daf cee war a tënku daf cee war a tënku gannaaw boo xam ne wéral na pas-pasam wéral ak jaamu yàlla pas-pas bi digganteem ak boromam la jaamu yàlla gi digganteem ak borom la boromam la akub yonentam ndax yooyu dañ ko koy laaj ëllëg waaye nag jikko yi mooy wàllu nit ñi ci sa diine nag ci yow maanaam de sa pas-pas nga mucc ci biddaa loolu su yëfi bopp la waaye nag nit ñi lan mooy seen wàll ci sa diine jëflante bu rafet bi dox sa diggante ak ñoom ak jikko yu rafet yi te jikko yu rafet yooyu suñ ko waxee ñi ci jëkk mooy ñi la gën a jege ñoo ko war a gën a xam ñee la gën a jege ñoo ko war a gën a xam moo tax ba muy wax abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan la ca nit ki ñaari waajuram ñooy ñi ko gën a jege wa bil walidayni ihsanan gannaaw boo joxee sa borom xaqam maanaam mbirum diine ma maanaam sa boroom akum yonentam kenn ku ci jël na xaqam ba noppi ka tegu mooy ñaari waajur yi ñaari waajur lan moo war a dox sa digganteeg moom rafetal jëme ci ñoom rafetal nag buñ ko waxee mën ngaa wax ne béréb bu ne wala jamono ju nekk wala waxtu wu ne mën naa am nañ koy firee tey noo xam ne bokkul woon ak nañ ko firee woon démb waajur wi tey toll na ci situation boo xam ne daa soxla ku ko laaye biir sag laaye biir tey kon mooy rafetal jëmal soo ko laayee biir ba mu xam yaari mbir yi mu doon nattable ban moo gën ci moom kon rafetal nga tey jëmale ci moom waajur wi dem na ba mu yàgg mu rafle yàlla wërsëgale dara loo xam ne mi ngi ci sa loxo nga dem xot ci mbubb ñëw teg ko ci loxoom bis boobu loolu mooy rafetal jëmale ci moom soxla na lu mu lekk nga indil ko lu mu lekk soxla na lu mu war nga indil ko lu mu war yooyu yëpp rafetal jëmale ci waajur la mu mer nga dalal ko ba xelam dellu si waat loolu ci rafetal jëme ci moom la bokk kon rafetal jëme ci waajur duñ ko tënk ci lenn maanaam mooy birrul waalidayni lépp loo xam ne lu baax ci moom la ci wàllu jikko ak rafetal ak nooy ci kanamam ak woyof ci kanamam gëm ne loolu jaamu yàlla la loo ci def lu mu mën a doon sooy boo nga xeeb ko léeg-léeg nag euh, wolof day faral di juum buñ ne birrul waalidayni mu ne topp sa ñaari waajur déedéet topp topp dañ koy tënk te rafetal nag kenn du ko tënk rafetal loo mën a rafetal rek defal waaye topp nag da nga koy topp ci la neex yàlla akub yonentam moo tax jamono yoo xam ne waajur taxaw na ne daf lay digal loo xam ne yàllaa ko yonentam dañ koo tere wala mu lay tere loo xam ne yàllaa ko yonentam dañ koo digle su boobaa bul ko geesu ndax ka ko bind moo la bind lam la sant loola la ko sant te su boobaa loolu kenn du ko tudde mukk mooy ndigalul ñaari waajur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp ku yàlla bind ci loo xam ne dafa naqari yàlla ma ko bind kenn du topp ku yàlla bind ci loo xam ne dafa naqari yàlla ma ko bind loolu lu mat a bàyyi xel la kon rafetalal jëme ci waajur yi rafetal goo xam ne yemut fenn tënkuñu ko loo man rek defal waaye soo koy topp topp ko ci li neex yàlla akub yonentam saa bu diglee loo xam ne dëppoo naa ndigalul boroomam dëppoo ndigalul yonentam kooka bu ca def ndànk gaawal def la mu wax soo ko deful bàkkaar ba mën naa kulu ndax su boobaa mooy nga yàlla mooy nga yonentam mooy nga waajur wa itam su ko defee bàkkaar bu garaaw ba garaaw lay daal di doon waaye nag ci kaw la muy digle dëppoo ak loola bépp doomu aadama nag bu mu mën a doon nag ci na waajur mooy ki la gën a jege keneen kum mën a doon day tàbbi ci biir loolu ak noo ko mën a tuddee moo xam sëriñ bala jàngal moo xam da ngay jigéen muy sa borom kër wala da nga di donga bu nekk sub sëriñ ñoom ñépp seeni ndigal moo ndigalul waajur woowu ñoo bokkub àtte ku ci digle lu baax dañ ko war a topp ku ci digle lu jooyoo ak ndigalul yonente bi kenn sañu koo topp kon e, jikko yu rafet yooyu ci waajur yi la tàmbalee waaye nag yemul ci ñoom moo tax ca laaya jow bir waajur واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم loolu yi ñu tudde al xuququl ashara fukk lañ yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafa leen a lim xeeti dëkkandoo yépp a ngi ci biir xeeti àndandoo yépp ñu ngi ci seen biir kenn ku nekk nga jox ko ak xam dimbali ko rafetal jëme ci moom leeral sa xar kanam ci ñoom toroxlu ci ñoom sax bañ a rëy xeet yooyu su dajee yépp kooku la ñuy wax ne kii lay boole na ma tax laa maanaam ay jikkoom rafet na ñetti mbir la nag yoo xam ne benn mënu cee dem bàyyi moroom tawxiid bi dafa war a sell dafa war a wér jaamu yàlla ji dafa war a sell dafa war a wér jikko yi dañoo war a rafet ñett yooyu nag bu ci manqué rek xamal ne fa manqué nga toll foofa la sa manqué diine toll lu mu gën a matit xamal ne la muy gën a mat foofa la sa gën a matu diine ci toll yàlla na suñu borom tabaraka wa taala dimbali jàpp ndalal nu suñuy mbir ba nu mën a wéral suñuy pas-pas am tawxiid ba mën a mucc ci shirk te it suñu jaamu yàlla mën a wér tegu ci sunna ban mën a mucc ci biddaa suñu jikko yi jikko itam rafetal ko ban mën a mucc ci lépp loo xam ne xeetu jikko ñaaw la kon defe naa ne ñuy jox uh, mbokk mi mu continuer ci uh, li doon tàmbali incha allah jazakumullahu xayran fadilatul docteur kon incha allahu gannaaw bi nga xamee ne eh, docteur na muqaddima bu am solo boobu tënk ko ci ñetti tomb yooyu ñu ngi fas yéene incha allahu tàmbali ci question yi kon question bu njëkk bi fadilatul docteur day wax ni gis nañu ni jamono jii am na ñoo xam ne dañuy wootewu ni dañuy faj ñi nga xam ne ñoo am rab waaye nag ñu ngi koy defee ci ay mocc ci sharia mu ne ñu def ko seen métier di ci sakku wërsëg lan mooy atte loolu ci lislaam nee na yal na yàlla barkeel ci yéen alhamdulilah bokk na ci nga xam ne dañuy gaar doomu aadama te mënul ñàkk muy nit ki nga xam ne dafay dund nekk ci kaw suuf moo di mënta yor wenn melokaan rek di ca dund di dem dund gi dafay am ay tund am ay xur bu dee ci wàllu am am la léeg-léeg mu am léeg-léeg mu ñàkk bu fekkee ci wàllu wér gi yaram la léeg-léeg yaramam wér léeg-léeg mu feebar feebar yooyu nag lu bare bare la yoo xam ne nu nekk lay doomu aadama loolu kenn mucc ko ba ci yàlla yi sax dañ doon feebar ak lu wér di di mar di sonn comme ni doomu aadama yi sonn ñu di leen lor comme ni ñuy lore doomu aadama yi kon doomu aadama bi dafa war a gëm ci li muy départ ne loolu lu mun a ñàkk ci dundam lu bokk mu def nag beneen muy lu ko ci gaar lu nekk lan la ko diineem digal kii dox ba yàgg mu xiif wax dëgg yàlla diineem nee la ko soo mënee am loo lekk demal wuti ko tam lew kooku dagan na ci moom ki mar dañ naa dem wuti lu mu naan ki nga xam ne dafa dem ba feebar gaar ko nag diine may na ko mu dem sàkku ji lu ko faj te mu doon lu dagan maanaam tënk boobu bu leen ko fàtte mukk te mu doon loo xam ne lu dagan la eh, mocc am na ci sharia mocc am na ci sharia waaye benn mu doon alquran wala sunna walla la muy mocce doon wax joo xam ne kàllaama gu leer naññ gu ñu xam la gu set wecc ci luy nuroo bokkaale gu set wecc ci luy nuroo ak bokkaale waaye jamono yoo xamee ne mocc ya loola génn na ca maanaam dara ci bokkaale dugg na ci wala woote ay xam-xam yoo xam ne yu nëbbu la wala nit ki dogu ne maaman nangam bu boobaa kooko muccatul ci sunna moo tax eh, mënuñoo jàpp ne mocc dafa doon lu compliqué ci charia loo xam ne dañuy wax ne kuréel sàngam dong ñoo ko man wala diw sàngam dong moo ko man ci dëkk bi nit ñi dem di ko seet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu daan mocce ak yi nit ñi mocce ci kanamam mu ne leen loolu baax na amu ci lenn lu jafe fatihatul kitab defe naa li ëpp si jullit yi mokkal nañ ko fatiha saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ajmain toog nañ benn bis di tukki jaar ci benn dëkk fekk waa dëkk bépp te dajaloo ko jëm am kilifa bu tëdd ñaq wa wër ko ñii upp fii mu mel ne ku nekk sukuraat saxaaba yi jaar ko ne leen lii lu mu doon ñu ne jaana ko màcc kenn ci saxaaba yi ne leen man de mën naa ko mocc maanaam lii ñuy tudde lun man de mën naa koo lugg ñu ne ko ah am na charte mu ne waaw su ma ko defee da may jox dara de ñu ne ko waaw baax na kon luggal danañ la jox dara mu jàng faatixatul kitaab tifli ko ca waa ji jóg sol ay dàllam ànd ak mbooloo ma ñu dem ñu daal di koy jox géttu xar mu indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye biñ laataan ak si ñu ne ah bala nga koo jël kat xaw nu laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam dagan na am déet biñ dikkee nettali ko ko mu ne ko loo ko doon mocce mu ne ko fatiha mu ree ne ko ku la xamal nag mocc la kan moo la xamal ne ak mocc la kon nga xam ne fatihatul kitaab ci boppam mocc la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu saxal na ko ba àgg ci sax ne ko na ngeen ma jox sama wàll ci li ñu leen jox kon loolu yonente bi yi salaatu wasalaam dund na ko ak ay saxaabaam te fatihatul kitaab kon yow jullit bi am looy mocc te mokkal faatixatul kitaab lu tax ngay sol say dàll di waaxu ne damay jëm birub sàngam ngir di mocc li gëmal ne faatixatul kitaab mii saxaaba yi jàngoon mu wàccee jaam ja mu wàccee jaam ja ci xew-xew boobee mooy faatixatul kitaab mii nga mokkal yow jàng ko ci li lay metti bu doonee lu la war lu war a wér te sa pas-pas ak sa yaqin àgg foofu bul nattab li ci ne luy wér lay doon salati ak naasi qul audu bi rabbil falaq qul audu bi rabbin naas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne def nañ ak njabar goo xam ne am na jeexit ci moom ci ak dundam dëgg la amul jeexit ci wax yu waaye ci dund gi mu doon dund ak doomu aadama yi dem nañ ba gis ne njabar gii ko kàccoor bii def mu yahut ba am na jeexit yu mu jeexital ci ñu yonente bi alayhi salatu wasalaam di doxale léegi te bokkul ak na mu doon doxale bu jëkk mu tëdd benn bis jibril agsi toog ci tolloog boppam meneen malaaka toog ci tolloog ay tànkam mu di leen gis kii ni ko lu ko dal nee na malaaka may laaj moroom bi lu ko dal mu ne ko moom de dañ koo njëbam kan moo ko def mu ne ko diw sàngam Walid ibn al-A'sam dafa am yëpp yu mu def sànni ko ci teen bu ñuy wax biiru Garwaan mu daal di ne ko mocc ko mu jàng fàllaxeeg naa si daal di koy tëfli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg doon yéeg yëgatu ci dara woo ay nit yebal leen ne leen dem leen ca teen boobu ngeen seeti ko ñu seet ko fekk lañ waxoon ne yahut ba da koo def ay sos ak ay yëf yëfaat yu kenn xamul ni mu doon sànni ko ci biir teen ba ñu dindi ko ba àggal digle ñu sakk teen ba ñu daal koy sakk mu jiibu darwaan kon fallate ak naas xulon su rabbi falaq xulon su rabbi naas lenn ci borom xam-xam yi ñu ne ca loola la wàcce waaye wàccewut ca loola koo jëfandikoo ngir mocc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wér kon bul jàpp ne mocc dafa doon loo xam ne nit ki day aajowoo mu jóg dem jàngi ñu ne daa war a nekk spécialiste boo xam ne bu ñëwee day ubbi ab cabinet wala mu soppi këram mu doon kër goo xam ne mbooloo ma dañ fay dajaloo di rang wala lenn lu simple la loo xam ne jullit bi am pas-pas am yaqiin ci ne lii muy def lii man na ko faj su ko ci defee su doonee lu war a wér suñu borom tabaraka wa taala moo koy wéral insha allah ci lu gaaw kon euh, wax dëgg yàlla mosunoo jàng ci taarix ak istuwaaru l'islam muy dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba ak ñi ne am na ay nit ñoo xam ne seen liggéey mooy dañoo toog rek di mocc loolu moom mosulu ko gis wax dëgg yàlla ci seen ak seen taarix kon jàpp na ne loola luñ amul woon ci wàllu diine nuñ tëralewul woon jamono dana dem ba lu mel noonu mën a nekk doon lu jaadu kon jàpp naa ne doon lu jaadu nit ka jaru fi bérëb ne nangootuma liggéey dara loolu damay moccal nit ñi ñii ñëw ma di leen moccal dong dong loola wax dëgg yàlla du liggéey ah xam nag looy moccali nit ñi ñëw nga ñaanal leen moccal leen mu daj tam tënku ci sunna tënku ci alquran loola day lu baax la ndimbal la ci jaam yi waaye bul ko jéem a def mukk nag mu doon sab liggéey ndax loola du liggéey dangay nga dem liggéey sab liggéey ba noppi def boo toogee ca sa bitig ñu fekk la fa nga mocc nekkee ca tool ba ñu boo nekkee ca leneen boo dee chauffeur ba sax di dawal sa oto ba dajeeg waaju aajo mocc nga moccal ko taalaat sa oto dem sa yoon moo xam ak taxi nga leneen kon Euh, doonul ab liggéey boo xam ne nit ki day dara ko jërëm wala ñu ne askan sàngam dong ñoo ko man léeg-léeg nga dégg askan wuñ ne ñoom ñoom rek ñoo xam nangam euh, da nga daan ñoo xam même gàllaaj yi ñu daan ak sax yéen ñu faan yoo xam ne diini tombeeg euh, dàkku ndaama xampu kebeeg yëpp yëfaan yu mel noonu yooyu nga xam ne askan wu ci nekk famille bu ne dañ leen a wutal loo xam ne jàpp nañ ne lii ñoom rek ñoo ko mën ñeneen mënu ko su doonee lu jàkk nga xam ne ci alxuraan sunna la tënku loolu moom wenn askan moom ndax alquran téereb suñu borom la sunna sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom waandaam moomu ñu ko waxte ko jazakumullahu xeyr fadilatu docteur alhamdulilah euh, tur yi nga xam ne dafa bokk ci yi sax ci sharia euh, ñi nangu ko mu doon yoo xam ne dañuy melal ñi jàpp ci alquran ak sunna jamono ju nekk war naa mën a am tur woo xam ne day am te du doon loo xam ne lu juyoo ak sharia la maanaam dañuy wax ne amoon na ay jamono boo ne al muslim rek jullit yépp ñoo bokk luñ doon maanaam dara ci njaxas dugg seen biir boo ne al muslim rek ñu xam ne jullit ci xas doon jullit moom jullit bi jeex na amatul leneen moo tax Xudayfa euh, ibnul Yamaan radiallahu taala anhu ci xadis ba mu doon nettali di wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam soppi ku ngir jigee woon ne dana am moom ci biir xadis boobu mi ngi ci wax ne toll woon naa yoo xam ne su ma may jëflanteeg nit ci alal nee na du ma xool kii kan la ndax benn mu doon ab jullit su doon ab jullit nee na du ma fi xool dara damay wóor ne du ma lor mukk wala bu doonee keneen ku dul ab jullit wóor na ma ne askekat bi commando la koo xam ne kii mënta yóbbu sama alal nee na moo taxoon awma lu may seet ci eh, sama alal kan laa ci jëflanteel mu ne waaye nag tey jii suñ koy wax ba tey joojee mu ne waaye tey jii su may jëflante jiw sàngam ëpp mu ne moo ma fi doy ñoo ma fi doy kon da ngay gis ne nit mu yàgg ak soppi ku am moo tax al imam Malik euh, Abdullah ibni Wahb mi ngi nettali mu ne benn bis dañoo ñëw toog ci Malik nee na al imam Malik ku ku euh, bari woon ak noppi ku néewoon ay wax la su toogee ci ab jotaay bi yi dañ daan toog bëgg mu wax dara ndax ñu mën cee jariñu waaye mu jafe lool def sell rek te kenn du ñemee wax nee na am taalibeem boo xam ne jamono yu noppee taw dana fexe ba wax loo ko nee na toog ba mu yàgg mu ne alhamdulilahi ala al islam al imam mari ne ko wa sunna waa ji waxaat ko ba mu ñaari yoon mu ne ko wa sunna mu ne alhamdulilahi al islam mu ne ko wa sunna maa ngi sant yàlla ci lislaam de mu ne ko neel ak sunna bi mu àggee Abdullah ibn Wahb nee na ma laaj Malik ne ko waaw lu tax waa ji ñetti yoon nga ne ko wa sunna nee na mu ne ko toll woon nan jamono yoo xam ne turu lislaam bi doyoon na waaye nag léegi ak feddli ko ba ñu xam ne kooku yëmul ci lislaam kese waaye ci sunna la jàpp kon ahlu sunna wal jamaa suñ ko waxee dafa doon tur boo xam dafa dem ba jamono laaj ko suñ demee ba jamono laaj ci biir kuréel yi itam ay njaxas am ñee nga xam ne ñoo jàpp ci alxuraan ak sunna ñi xame leen aw tur woo xam ne tudde nañ leen ko tam dëppoog sharia bu boobaa jot sa bañ ndax sharia ci boppam bañu ko waaye li ñu bañ nag mooy damoo aw tur maanaam toog ci béréb fëgg sa ne man maay nangam déedéet loola moom dañ koy bañ moo tax euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan jàjji ci lu mel noonu di wax ne wattandiku leen lépp loo xam ne xeetu damu daf caa dugg rek loola daf ko doon tere donte loola dëgg la donte da ngaa fëgg sa ne man jullit laa sax déedéet loola bu ko damoo sa borom tabaraka wa taala moom moo la defal xéewal boobu santal sa borom yamunnuuna alayka an aslamu qul laa bal illaahu yamunu aleykum id hadakum lil iman in kuntum taalamun su borom tabaraka wa taala ci boppam moom moo saña wax ne maa la defal nangam ak nangam ak nangam waaye ngay taxaw ci béréb ne man sunni la wala man salafi la wala man ci ahlu sunna wal jamaa la bokk wala man ab jullit laa te fekk la nga ci jublu mooy damu ci kanam nit ñi su boobaa duutu daga waaye nag su fekkee ràññee la ràññee la diggante waa bidaa ak ñu dul waa bidaa nga ne ñii de ñooy ahlu sunna jamaa wala nga ne ñii de ñooy sunnit ñi wala nga ne ñii de ñooy salafu yoon yi nga ràññee leen ci lu mel noonu su boobaa loolu doonut loo xam ne luy wàññi dara la te kenn waru koo inkaar kenn waru koo weesu itam faw ñu xam ne bi ñuy waxe mu dagan ak maqaam bi nga xam ne danga nga waxee du dagan waaw Fadil Toppo ci dafay laaj ni lan mooy jumtukaay yi ak sabab ngir julli ci mën a nekk benn mu ni ndax mën nañoo wuute ndax mën nañoo nekk benn fekk ñu wuute ci suñu jëmuwaay suñu mën a ak suñu pas-pas alhamdulilah su fekkee ne ak bennoo lañ ci jublu boo xam ne bennoo bu dëggu la day mënuñoo bennoo te fekk suñ pas-pas ak suñ mën a àndul doon benn maanaam pas-pas wax ne bennoo dëgg li nga xam ne mooy bennoo gi lislaam bëgg amoon sa diggante saxaaba ya ñeenti ci jëkk mooy waxdatul aqida seen ci boppam day doon benn pas-pas gëme seen borom na gëme seenub yonent sallallahu alayhi wa sallam pas-pas boobu day am ñaareel ba mooy waxdatul gaaya li ngeen di def seeni jubluwaay ak seeni yéene la ngeen ca bëgg jamono yi ngay woote ci yàlla loo ci jublu ndax da ngaa bëgg mbooloo toppal wala da ngaa bëgg diine ji tasaaroo jamono yi nga jógee di leen ndax da bëgg ñu ne jàngalekat la wala dangaa bëgg nit ñi xam jamono yi ngay jàng alxuraan te man ko lool ndax da bëgg ñu ne kii moo neex baat te mën a tajwid wala da bëgg nit ñi dégg loolu roy ko dem jàngi alxuraan jubluwaay yi saa boo xamee ne yàlla kese moo tax kon bennoo gi day daal di yomb kon bi njëkk mooy waxdatu al aqida bi ci des mooy waxdatu al gaaya beneen bi ci des mooy waxdatu al qudwa ki ñuy roy na doon kenn ci ngir bennoo mën a am su fekkee ñëpp gëm nañ ne ki ñu war a roy ci diine moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon su boobaa bennoo gi dana yomb lool waaye su fekkee ku ne da ngaa am koy roy ku bokkut ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn duutu yomb maanaam boo xoolee li ñuy dund noonu fii Sénégal su fekkee xool nañ suñ situation mooy kenn ku nekk royukaay dafaa nekk bu bokkut ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam royukaay yu bari yooyu kenn ku ci ne da ngaa jàpp ne nekk foofa la yëf ya nekk fu dul foofa du dara su ko defee lu muy jur mooy tàqalikoo bi kenn ku ne war sa morom gannaaw bu ma sama kër bàyyi la yëf ya nekk xalifa ne sama kee ne sama kër baay sama kër baay kenn ku nekk woote mbooloo fekk ci la moo xam ne yow lay wuyu si su boobaa lan moo leen di bennal du yomb waaye nag suñ dellu woon nag te ka nga xam ne mooy yonent bañ yónni woon ci sama baay sa baay ak baayu diw ñu roy yonent boobee sallallahu alayhi wa sallam su boobaa bennoo gi suñ ko lu dëggu lay doon ci beneen bi ci def mooy waxdatu al marji al marjiiya juuyoo wala xuloo am wala werante fan la ñuy dellu ngir loola mën noo àtte borom bi tabaraka wa taala nee na su ngeen juyoo dellu leen ci alquran ak sunna fa in tanazatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi al axir dalika xayrun wa axsanu tawila yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla su ngeen juyoo dellu leen ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu atte leen waaye su fekkee ne kenn ku nekk dangaa ngaa am looy attewu lu bokkul ak alxuraan ak sunna kon ñooñu kenn du leen mën a boole dadi nag suñuy wax bennoo ñu xam ne bennoo pas-pas ak mën haj ak jubluwaay ak fun jëm loolu mooy bennoo gu wér ga waaye loolu taqalewut ne ay juuyoo ci ay masala mën naa am moo tax faaw nag li ñu tudde fiqhul xilaaf fiqhul xilaaf mooy xam gan jooyoo moo war a tàqale nit ñi ak gan moo leen warta tàqale loolu des ko war a xam ndax euh, alxilaaf fi l manhaj bokkul ak xilaaf fi l masala maanaam jooyoo ci manhaj bi ci boppam kooku mooy tàqale nit waaye jooyoo ci ay masala loolu warta tàqale nit jooyoo ci manhaj mooy lan mooy kii dafa gëm ne diine dañ ko war a jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa ci alquran lañ ko war a tudde ak ci sunna keneen ñëw fële ne ko yooyu day mënees na ci tibbe waaye mënees naa bi it nag ci gént bu nit géntee te doon nit ku baax ne lii nañ ko ci boole loola mën nañ ko ci boole kon foofa juuyoo ci mën xëj dal nay am mooy fu ñu jële diine boobu juuyoo kenn mënu koo defaraat mëne su ko toléré itam lu dul dañoo xamal kële ba mu xam ne diine bii su ko jële ci gént waaye nag juyoo ci masala moo xam ne léeg-léeg kenn ku nekk dafa am fu mu jàpp koo xam ne jàpp na ne lii alquran a ko tegtale kii ne ko ah alquran lii ci jublu ñoom ñaar ñu juyoo ci loolu kenn ku ne di jëfe lenn su boobaa googu juyoo war a taxale askan ndax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain daanañ juyoo juyoo yu mel noonu ci ay masala waaye mosuñoo sikki sàkk ci ne lu sax ci alquran wala sunna daganul ci jullit mu di ko woon gannaaw kon faw bokk na ci fiqhul xilaaf ñu xam ne ak tafriq bayn al ixtilaafi fi lmanahij wal ixtilaafi fi lmasail qaida bu am solo la boo xam ne kuy jàng ku nekk war nga ko bàyyi xel yëg ne masalam fiq ma nga juyoo sa moroom moo xam ne jéem naa góor góorlu góor góorlu góor góor góorlu nii rek la ko mën a dégge defe ne nii la ko alquran ak sunna tegtalee keneen ko góor lu ba defe ne lii la alquran ak sunna tegtale kii di jëfe nii kii di jëfe nii loolu du tax ak noonoo war a dox seen diggante waaye nag saa bu juyoo amee nag ci mën hëj bi muy xatt bu mag bi nga xam ne moom la yàlla ko yonentam xotti muy diine ci alxuraan ak sunna lay jóge nga jàpp ne mën naa jóge feneen su boobaa juyoo am na boo xam ne neexutu defaraat booba bu boobaa juyoo gi sax day war su boobaa faaw yooyu ñu bàyyi ko xel yéen koo xam ne itam nag kon bennoo jubluwuñ ci ne dañuy bennoo ci lépp waaye mën nañoo juyoo ci ay masala te teewul nu bennoo léeg-léeg nag am lu am loo xam ne lu mat a bàyyi xel la moom itam mooy ay nit mën nañoo juyoo ñoo xam ne xëy na ñoom ñëpp sax ñu ngi ci kaadaru sunna waaye am na ay tomb yoo xam ne juyoo nañ ko nag xaw a takku yenn yi mën naa doon ay wasaa'il yenn yi mën naa doon leneen waaye menn mbir mën naa teew moo xam ne ñoom ñëpp war nañ cee mën a daje ngir jëriñ ñi bokk daje ca loola jëriñ kenn ku nekk delluwaat ca toolam liggéey lu mel noonu lu mën nekk la te bu boobaa day jëriñ waaye du lor wallahu taala jazakumullahu xeeran fadila docteur ne am na ci doomu aadama yoo xam ne dañuy def sax ci benn mësal wala benn borom xam-xam am ñoo xam ne jàpp ne loolu am solo orientation borom xam-xam yi ak ay ima yi yi teel ne mu ne lan mooy seen gindee gindee ci loolu alhamdulilah eh, ngeen ci boppam jaadu nañu xam mooy lan ñi ñuy tudde borom ngër yi muy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ci gën a siiw yenn ci ngër ñoo ci gën a siiw ànd ak ñoom yi ëpp na lool yi ci gën a siiw mooy ngërum Abu Hanifa ngërum Malik ngërum Shafii ngërum Ahmad ibn Hanbal ñeenti ngër yooyu ñooy yi gën a siiw nan la ngër amee mooy borom xam-xam ñëw na fii ci Mbuur di fi jàngale waa Mbuur ñëw nañ di jànge ci moom beneen boroom xam-xam a nga fële ci Cees di jàngale beneen boroom xam-xam a nga fële ci Ndakaaru beneen borom xam-xam a nga fële ci Joal di jàngale ñooñu kenn ku ci nekk sa xam-xam dafa am fu mu am fu mu am loo xam ne moom nga gën a xam am loo xam ne sa xam-xam àggu ca kenn ku ci ne jàngale lam xam soo dëkkoon ci taalibe bi ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñeenti dëkk yi ma tudd nga xool seeni xam-xam da nga gis ne wuute na kenn na ci boroom xam-xam yow wuutee ci wàllu xam-xam léeg-léeg ci jàngale loo xam ne moom na nam ko jànge man sunna la ko jàppe keneen jàngale ko keneen mu doon ko farata ñu bokk daje ñoom ñaar suñ werantee kii ne ko sunna la kii ne ko farata la lu tax mooy kii lii la ko jàngaloon teelee la ko jàngaloon waaw ndax ñoom ñi leen ko jàngaloon itam dañ doon tay taylu di juuyoo déedéet kenn ku nekk fa sa xam-xam yam ak na nga jëfe woon ak sa ijtihaad loola lañ jàngale loolu moo tax euh, ibnu taymiya rahimahullah taalif na benn téere boo xam ne mu ngi ko tudde raful malaam an al a'immati al a'laam mooy dindil yaraange kilifa yi nga xam ni ñooy ñooy borom ngër yi maanaam ñooñu yaraange dalut ci seen kaw ndax kenn ku ci ne def nga li la war ko mu mat leneen li ko def nag nit ñi la waroon mooy kenn ku ne ñu jéem a gëstu ba xam fan la jóome ñu jubbanti ko pexe ba bañ a tàbbi ci njuumte waaye nit ñi ñëw gannaaw bi lan lañ def mooy kenn ku ne ne man diw mooy sama imaam toll woon nañ jamono yoo xam ne taasub boobu muy tudd muy fanatisme boobu àggoon na ci tar lool sax nag ba jéggi dayo ba mel ni ay diine sa faw xam ne kii danaan sama a ngi am ngërëm dong laa xam ci diine lislaam te fasuma yéene geesu leneen lu dul loolu keneen ka ca des noona keneen ka ca des keneen ka ca des noonu loola doonoon ab diggante boo xam ne tàqale woon na xeet wi ba léeg-léeg ngay jàng ci téere fiq yi sax ba ci suñ jonni tey jii yoo xam ne masala yoo xam ne boo ci àggee ngi bindoon ko ci siècle yooyu muy septième siècle baag huitième baag neuvième siècle bi ci gàddaay bi léeg-léeg reer lay jàpp ci yenn yi boo koy jàng am na kenn ci surtout diggante ñi ñu tuddee alxanafiya ak alshaafiiya li ñu tuddee xanafiya ak shaafiiya lu lu doya doya doy waar moo dox seen diggante ci xeeti masala yoo xam ne boo ko dee jàng day mel ni diggante ñaari diine yoo xam ne bokkuñu nekk ci diine lislaam waaye yooyu yëpp nag doon loo xam ne la chaque ne ay njuumte la eh, li mu junjit nag ne am na ñeneen yoo xam ne dañoo ñëw ne amuñu mazhab te duñ jox eh, considération ñi nga xam ne ñooy imaam yooyu maanaam duñ leen ko jox loolu itam njuumte la maanaam ki nga xam ne moo ëpp ëpp cër ci fiq ci suñ jonni tey moo ko xam ne dafa ñëw fexe ba ngir yëpp mu ciy jëriñu maanaam doone du ma topp benn imaam waaye da ngay topp imaam yëpp ginnaaw boo jàngee ci bii masala da nga gis koo xam ne wóor na la ne li Maalik wax fii moo gën a dëppoo ak dalil moo gën a dëppoo la Shafii wax la Ahmad wax la euh, Abu Xanifa wax nga jël foofu waxi Malik beneen masala ñëw boo xam ne mbir ma ci kaw Malik la dal nga bàyyi ko fa jëlee ci Shafii beneen mbir ñëw boo xam ne ci keneen la jóge nga jëlee ci moom kon jàpp naa ne kii jëriñu ci ñëpp moo ëpp njariñ ki nga xam ne day jëriñu ci kenn rek doon na leer nañ su fekkoon ne ñeenti nit dañoo nekk fii kenn ku nekk yorub toolam bay ba àggal yor asakaam di ko génne nga doon ku yeyoo asaka yow kii ne man gerte laa bay kii dugub laa bay kii ne nangam laa bay kii ne nangam laa bay ñeent ñooñu nga ñëw ne ci kenn ka rek laay dem mu jox ma lu mu am loola doy na ma lu mu amul soxlawuma ko keneen ñëw ne ah man de yeyoo naa asaka waaye ci ñoom ñëpp laa fas yéenee dem dem ca ku yor dugub mu jox la ca ka yor gerte mu jox la ka yor sëb mu jox la bu ëllëgee da ngeen daje nga yorug leget yanu ko ci sa bopp moom mu sëf mbaamam ba mu fees dell ak i saako loolu misaal la moo xam ne moo lay won ne kii jëriñu ci ngir yëpp mooy ëpp xam-xam ki nga xam ne daa ñëw nuur ci mennum ngir ne lu fa nekkut boolewuma ko ci lislaam dadi nag loolu dugg ko tëb tëb rek mën caa àgg dëgg la booy jàng faaw na nga tàmbalee ci am ngir ndax loolu da lay dimbali boo jàngee téere ngir mi ba xam ko xam kóotaay bi mën a def li ñuy wax tasawur masalay fiq ci boppam ba dégg ko jéego ba ca war a tegu nag mooy li ñuy tudde al fiqhul muqaaran mooy comparé nag diggante mbir yi boo leen comparé ba xam masala yi nga xam ne juyoo nañ ca nga jéem a góorlu nag ba dégg nas muy xam xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam tafsirul quran ndax loolu it moo lay dimbali ba nga mën ne diw sàngam li wax fii kat li diw wax fii moo ko gën a dëgër li di wax fii kat li di wax fii moo ko gën a dëgër ndax moo gën a dëppoo ak xadiis moo gën a dëppoo ak alxuraan loolu lépp nag ci cadre xam-xam la boo xam ne eh, kiy jàng moom mooy dem ba àgg ci yu mel noonu waaye ci tàmbaleegut wala muy door a tàmbali nag faaw moom ci mel ngir lay tënku waaye bu tënkoo ci ngir moom mat nag bu mu jàpp ne foofa la lislaam yam nga xam ne am na yeneen yi ngir yoo xam ne su ma mënee jëfe ci ñoom lu mu jëfe it wala mu laaj wala ka koy jàngal mu ne ko lii wér na su boobaa na jël loola jëfe ko léeg-léeg nga dégg kuy kuy waxe noo xam ne danaan noonu de sunu ngir lii la wax kon nag loolu rek ci la ñu yem léeg-léeg nga dégg ko ci rajo yi koo xam ne nangam ak nangam sax am na koy wax waaye loolu nag bokkutul ngirum Maalik mel ne dafa doon loo xam ne lu génn cadre l'islam la loolu ay njuumte la bu ñu xamoon sax ci wàllu histoire danañ xam ne ngirum Maalik ci boppam yàggul yàggul ci sowu jant ngirum li fi yàggoon mooy ngirum al Awzaa'i nga xam ne dafa dem ba tey am ngirum dafa ràpp li ñuy tudde al maghrib al arabi ci mbirum awzaa'i lañ lañ nekkoon ku ñuy wax al maqarri ci téere bu ñuy wax nafxu tiib nee na al maghrib al arabi yépp ci mbirum awzaa'i lañ nekkoon ba abdurahman al daaxil gàddaaye ca ku ñëw dikk maro yàlla dogal mu nekk fa ba doon fab àttekat maanaam doon njiitul réew mu forcé nit ñi ne leen ngirum maalik ci ngeen di nekk ndax moom ngirum maalik la indaale woon ba muy ñëw kon loola moo tasaare ngirum Malik ci koñ bi waaye su dul woon loolu ñu nekk fi ñëpp ay awzaa'iyuun la ñuy doon euh, kon ñu xam ne mbir mi doon loo xam ne day diine ji wàcc nga ne du ma ko bàyyi faw ci lay jàpp du ma ko bàyyi di dem ci leneen waaye li wér mooy alxuraan ak sunna yàlla nu borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalal xam-xam bu mën a jàppe ci alxuraan ak sunna te fonk nag imaam yu mag yooyu nga xam ne liggéey nañ ci lislaam liggéey boo xam ne liggéey bu réy réy réy la boo woon ñoom wax dëgg yàlla dégg fiq ak ko lu ci bare bari nag mën naa jafe naam jazakumullah xeer fan yi def docteur ci nee na dafay laaj lu ñuy wax fiqhul waase maanaam fiqhul waase fiq boo xam ne dafay wax ci réalité dafa dégg ñu koy wax lu bëri mu ne loolu si lay teg alhamdulilah euh, al imam ibnu qayim rahimahullah Eh, ci téeréem bu baax a baax sa màgg ñu koy wax i'laamul muwaqqi'in an rabbil alamin day wax ne laa yufti fi lmasala illa man faqiha alwaaqi wa arafa alwaajiba fi lwaaqi nee na daganul ci nit ki muy ubbee ci masala lu dul su xamee li ñuy tudde waaqe waaqe xam naa comme ni ko firee léegi réalité la ko firee waaye gën naa xóot réalité ndax réalité mooy liy xew tey al waaqe ñu ko doon firi tey dañuy wax ne askan wu ne am nañ seen seen waaqe waaqe boobu aada yaag cosaan yaag xalaat ya fa am ak seen i pexeeg dugg-dugg ak seen i yooyu yëpp ki ko xam kooku moo mën a ubbee ci ñoom ndax ki nga xam ne dafa ñëw ne cëpp rek xamagul pexe sénégalais laaj sénégalais bi mën na posé ko question boo xam ne mën naa fexe ba mu tontu ko tontu loo xam ne loolu kenn ko woon a lu tax mooy xamul seen i pexe xamul seen i dugg dugg xamul seen i aada xamul seen cosaan waaye su fekkoon ne ku xam kii la dana ñëw laaj rek nga xam ne kii la mu si jublu nangam ak nangam la su ko defee la nga koy tontu du bokk li ko li ko xamul di tontu kooku la ñuy tudde fiqhul waaqe ci iftaar ndax masala boobu ci masailul ifta muy ubbee ci diine askan wi ngay ubbee ñi war laa laaj ci diine nga di leen tontu war ngaa xam seeni aada ak seeni cosaan ak seeni ya nëbbu ak ya feeñ sax yu ci bari nag fii mu nekk eh, lu bare baree bari masala yoo xam ne da nga koy jàppee lu tuut nit ki mën na la cee laaj nga tontu tontu bu simple fekk masala boobu boo demee sax ay jaasi mas la cay jóg ay nit di ca xeex boo jëloon suñ mbokk yi Guinée defe naa ñàkk fi xëy na su ñàkk mbokk yu xam loolu ci wàllu ngénte yàpp wi nañ koy def defe naa lu simple la ci lu bare bari ci nit ñi mooy woo nit ñi rek togg ko ñu lekk ko mu jeex waaye déedéet bu dee ci ñoom am na nag xeeti aada ak cosaan yoo xam ne tànkub nangam la faw dañ koy jut askanu ki nga xam ne mooy ku jigéen tànkub gannaaw ba moo xam wala mu kanam ba ala kulli xaal am na ay tànk ak ay cër yoo xam ne yii ci askanam fa ndaw sa jóge woon ca la war delloo am yoo xam ne ci la te loola àgg na leen koo xam ne su ci nit ki ngénte woon te defu ko danañ ko forcé mu waat wala danañ jàpp ne ngéntewut wala lu ne mën na caa jur bokk yi dañuy nettali sax ay fitna yoo xam ne taxaw na te fekk loolu moo ko tax a taxaw léegi soo fa ñëwoon ñu ne la waaw yàpp ngénte dañ koy def te dañuy won nit yi rek togg ko lekk ko mu jeex soo leen di wax ne loola àggul foofa it war na nga xam seen waaxe bu baax xam ñii masala boobu nan lañ ko déggee ak nan lañ ko jàppe soo leen di wax ne loola lu wërta am la it maanaam loola yi ñuy def ñoom ndax loola wërta am war nga leen koo leeral ba convaincre leen maanaam wax leen lu mën a dugg ci seen bopp lu tax ba ba muy dañ ndànk-ndànk waaye doonut loo xam ne da ngay ubbee benn yoon rek mu jeex damaa joxe misaal moom waaye misaal yu bare bare bari noo ngi koy yoo xam ne kenn mënu caa ubbee te xamuloo li ñu tudde waaqe léeg-léeg nag daa am ñoo xam ne bu ñuy wax fiqhul waaqe lii jëkk ci bopp yi mooy dañuy defe ne fiqhul waaqe mooy mooy politique ak xam li xew ci àdduna ma ne politique ak lii xew ci àdduna léegi dafa dem ba ñi ñi jàngul sax xam nañu ko ñi jàngul sax xam nañu ko lii xew ci àdduna da ngay gis xale boo xam ne wala màggat moo xam ne maa ngi fàttaliku conférence boo xam ne fañ ko doon defee digganteem ak Ndakaaru mat na defe naa ne juróomi téeméeri kilomètre biñ conférencé ba waxtaan ba jeexal ci dëkkub àll bu soree sori ci jamono yooyee ci waa Danemark yi doon wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ju ñaaw ji di dessin seen dessin yu bon ya dëkk boo xam ne courant nekku fa bi nu waxtaanee mbokk ya ba jeexal tàkk as soxna su màggat su yor ban taxaw fële ne man de am naa lu ma bëggoon a wax ma ne leen bàyyi leen soxna si mu wax mu ne waaw yéen da ngeen a nekk fii di waxtaan ba seen waxtaan wi jeex tubaab yi wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa lu bon te du ngeen te du ngeen te wax ma ne allahu akbar jële nañ ci ñaari njariñ moo di xoolal lislaam diine la joo xam ne yataxarraku zaatiyan diine la joo xam ne mooy demal boppam su ko nit ñi puusutit mi ngi demal boppam xoola soxna si fi mu nekk ah gaw ma ne sax rajo bu mu déglu am na ko yàlla xam ab courant nekku fi xëy na su amee rajo moom lay déglu loolu ñu wax ca Danemark ñu wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xabaar bi di ñëw di ñëw di ñëw ba agsi ci soxna si ci àll bu sori bii diineem àgg ko foofu te mu wóor ma ne mënta liir aw turam ci wenn làkk wu ñuy bind kon diine lislaam doon diine joo xam ne dafay tasaaroo di demal boppam ñaareel ba lan jariñoo mooy lii xew ci jamono tey mooy bi teew bii tey mooy ñëpp ko ko xam daanaka doonatul lu nit ki tiitaroo di wax ni ñii dégg nañ àdduna ñii dégguñu àdduna ñii xam na ñii xamuñu ndax léegi àdduna tasaaroo na mbir mi xëttaloo na bu yàgg dañ doon wax naan àdduna dem na ba léegi benn xariya la man léegi damay wax ne benn xayma la maanaam jéggi na jéggi na doon ab ab village waaye fi mu ne dafa mel ne benn tànn lay xew ca fa gën a sori mën ngaa toog fii tey di xam léegi fi nga toog muy ci internet bi mu ci satellite bi mu ci yeneen i moyens yi nga xam ne doomu aadama yaa ngi koy jëfandikoo téléphone yi nga xam ne moo am tey téléphone portable xëy na xale yu ndaw yi mën naa bañ a doon kéemaan ci ñoom waaye ñi ci doon ay mag tuuti fàttaliku fukki at ak juróom ci gannaaw fan lan toll woon man de am na ay jamono yoo xam ne maa ngi nekk Arabie Saoudite su ma soxlaawoo xal Khalil am na kër goo xam ne ca marché ba ab téléphone nga foofu dama leen di woo ba ñu wuyu ma ma ne leen nee leen ko bu subaa ca midi fii danaa téléphoné téléphone boo xam ne moom lay waxal su ko defee dañ koy woo bu jógee këram solo dàllam waa ko ba foofu bu ngi jotee ma téléphoné mu wuyu ñu wax suñu wax ba mu jeex mu awaat yoonu këram jàng ci loo xam ne yéesu ëpp kilomètre kon foofu la yëf yi toll woon fukki at képp ci gannaaw wala fukki at ak juróom tey àgg na ci da seen ku nekk ci kaw sareetu mbaamam yor téléphone portable am di wuyu seen ku nekk ca kaw am ngooñam dafa ndirimul ngooñam loo xam ne ma nga ca kaw yor téléphone portable taxaw boo ko di wuyu amaana ka muy wuyu Chine la nekk di wax ak moom kon léegi wax dëgg yàlla mbokk yi mooy àgg na foo xam ne fu nit ki di damoo di naan fiqhul waaqe boo xam ne dañ koy firee xam li xew ci jamono kooku njuumte lu rëy rëy rëy nit ñi fii mu nekk ka gën a simple fii Sénégal gën ci gàtt ab xam-xam politicien la boo xam ne loo ko laajoon ci xew ci réew mi mën na la caa wax lam ca xam lenn lu ci nekk lu ci dëng mën na leen nangam ak nangam dafa dëng kon boobu waaxee moom muy boobu réalité moom nit ñu xam nañ ko mu des nag ci bëgg a ubbee ci bëgg a ubbee moom laaj na nag lu baree baree bari moom mu xam ndax diine ku ciy wax ku nekk firiwul ne jàng naa masala mi xam naa ko rek mën naa ko wax nit ñi dégg ko waaye jàng naa masala mi ba xam ko waaye nan laa ko war a waxe ak fan laa ko war a waxe loolu ay tomb la nag mag yoo xam ne liñ ci laaj la formation bu bu ñor xom bu dëgër ngir mu mën koo xam wallahu alam amiin président docteur bi day laaj ni am na ay góor yoo xam ne dañuy niru niru jigéen ci jamono ji te yàlla bëggoon leen te jamono yu dañ leen bëggaloon lu mu waral lool alhamdulilah euh, amul mbugal mu gën a rëy ñaan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal ci kaw nit maanaam loolu mooy mbugal mi gën a rëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laana allahu almutashabbihina min alrijali binnisa wa laana allahu almutashabbihaati min annisai birrijal yàlla rëbb na wala yàlla na yàlla rëbb gépp góor goo xam ne day nuru nuru lu jigéen ak gépp jigéen boo xam ne day nuru nuru lu góor kon lii musiba la moo xam ne mel musiba féetewu ko kaw mu ñaan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ci sa kaw amma nag mbugal moo xam ne mu teew la bokk na ci ñaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan boromam mu nangul ko ko mooy mu bañ a faagaagal aw xeetam ci mbugal moo xam ne mu teew la maanaam nee na ñaan naa sama borom nañ daan def xeet yu jëkk ya nga def dara rek mbugal daal di wàcc ci sa kaw mu bañ a jëflanteeg ñoom noona nee na sama borom nangul dama ñaan boobu waaye nag mbugal ni mbugalum ñaari mbugal la ndax ma yées mooy mbugalum àdduna aka neexoon fitna daal ci kaw nit ki doon mbugalam kam yam si bu ëllëgee mu mucc ci mbugalum ëllëg waaye mucc ci mbugalum tey ba noppi mbugalum ëllëg di la xaar koo kooku musiba la te rëbbug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola lañ koy ragal loolu moo tax la ñu jëriñoo ci masala bi mooy daw lépp loo xam ne dafay nuru xeet yi nuru nuru ñecca def maanaam góor di nuru nuru lu jigéen wala jigéen di nuuru nuuru lu góor jàpp naa ne jigéen nuuru nuuru lu góor li muy bon bon bon góor guy nuuru nuuru lu jigéen moo yéen ndax loolu la muy firi mooy askan wu nasax suñ demee ba ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci seen digg doole askan wi di séentu ne ñoom ñoo war a tabax seenum réew ñu lettu takk jaaro yu nopp sol tubay yoo xam ne àggut ci seen digg sax ñoo ñooñu day wane ne askan wu nasax a ngi woo xam ne ku leen yaakaar ëllëg boo la ngay perte jazakumullahu xayran docteur euh, kii day laaj ni ñun ahlu sunna yi ndax war nañoo mën a am njiit amir euh, bu fekkee ne loolu war naa mën a am lu tax amuñu ko ndax def lu war ci ñun alhamdulilah ala kulli xaal bu fekkee ne njiit liñ ci jublu mooy ci wàllu organisation loolu moom bu neexee ahlu sunna ñu daje def seen organisation tànn njiit teg ko ci seen kanam ne kii mooy sunu njiit ñun ahlu sunna su boobaa lislaam du ci am lenn lu mu ciy wax lu muy tere li am solo mooy su fekkee la leen di boolee bu boobaa mooy ak taawun ala al birri wa taqwa muy bennoo ak jàpp ci alquran ak sunna ak soññante ci ak dolli seen kattan ak seen force ci kaw suuf jàpp ci siraatul mustaqim di woote ci lislaam su boobaa la chaque ne lu baax la moo gën situation boo xam ne nit ñi dañuy tàqali boo kenn ku nekk nekk ci sa la chaque ne loolu moo gën su boobaa waaw